waaw maa ngi leen di fay. ñoo ngi fin session bi. Mhm. te yow bi mooy sa première fois nga ñëw assemblée. Mhm. te yaakaar naa ne yaa ngi fi si jàmm. Mhm. ban sentiment nga am ak nan nga gisee assemblée nationale ak ban jàngat nga fi am daal ban histoire. waaw man damay njëkk ñëw présenté wax la. honorable li madame tey jii bés sant yàlla la ci man bés sant yàlla lu sax. maa ngi wax alhamdulilah rabil aalamiina di sant yàlla julli sangu sangu yi sidna Muhammad sallallahu alayhi tax may sant yàlla mooy yàlla may na ma dund ba dégg turu honorable kon dama koy sant bu baax a baax waaye ci kaw sant googu nag ginnaaw bu ko santee julli sangu sangu yi sidna Muhammad sant sama ñaari waajur sant sama borom kër damay sant tamit Mouhamadou Mamour Niass premier serviteur rassemblement de peuple Dekkal Yaakaar bu RP waaye damay ñëwaat sant doomam Mouhamadou Mansour Niass di nekkoon sunu serviteur tamit yàlla def li ko neex dama koy sant bu baax a baax ndax tamit tey bu may am lii yàlla ak ñoom la su may dégg honorable député yàlla ak ñoom la kon maa ngi leen sant bu baax di ñaan yàlla fañ ñu jógee di yokk seen leer. taas ñu seen barke ci barke Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ñaan liñ fi bàyyi ci njaboot yal na ci yàlla def barke yal nañu yàlla fayal leen ñu te fu ñu tëdd ci barke Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam may remercier waat président de la République Sénégal président Macky Sall sunu soppe sunu xarit moom tamit dañ koy remercier lu bëree bëri di ko ñaanal yàlla li nga xam ne moom la sumb yàlla may ko wér ak kàttan ba mu yeggale ko ñu fekkee ci barke Sidina sallallahu alayhi wa wante bu ma santee nag premier serviteur sant waa RPS sant président damay ñëw fii ci assemblée bi di sant ñi nga xam ne ñooy suñu ay naataango nekkoon fi ay député ñun tamit ñu bokk ak ñoom nekkoon fi tamit suñu collègues yi maa ngi leen sant ñoom ñëpp man de dama ñëw macha allah ñoom ñëpp ñu boole ma seen bopp ak ma bu rafet bëgg ma ma de may sant ñëpp nag bàyyi ma benn député ñëpp laa sant. su ma jógee ci photo may sant ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci assemblée di fi liggéey ay xalal lañu wala ay mag lañu ñu baax lool am yéen mën a ci mag lool sant boobu nag su ma tuddee sax wala ma lim damay juum waaye naaj ci am ñu ma tudd teg seen loxo ñu séddale ma ko ñi nekk ci assemblée bi ñëpp di fi liggéey secrétaire yaa xam wala loo nekk rek mu gisal ci madame Dia ak ñoom Betty su ma nekkee di lim mën naa juum. waa restauration ñoom ñëpp sant naa leen ci kaw ci suuf bàyyiwuma kenn Ablaye Ndiaye ñu baax ne fii ñu baax ñu am yërmande ñoo nekk fii waaye may yónni sant ki nga xam ne yàlla fi ñu boole ak moom muy président Moustapha Niasse maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla fii mu nekkoon tey yàlla dogal mu jugee jël retraitam ci jàmm ak salaam fa muy dem yàlla na ko yàlla may jàmm ju ànd ak salaam li ma ko waxoon kar rek dundal dundal. sa dund amal nañu njariñ da dund ba mu yàgg lool lool toog witt lañu macha allah may sant ay meeru ñu ngi suñu président ku baax ku am yér ma ne ku mën a dimbale waate ku mën a jàppale waate kuy déglu ni tamit kon Ablaye fii maa ngi sant ñi fi nekk ñëpp waaye Mouhamed Sarcé di député Mouhamed Diop nga xam ne ku jóg ci moom ngay dem man boog su ma jógee rek ci moom laay dem mais Mouhamed su ma demee macha allah. dina ma déglu dina ma conseiller dina ma jàppale dina ma wax fan laa war a jëm fu may teg sama tànk yàgguma fi noonu de mais maa ngi sant te tamit moom dama koy sant bu baax a baax ndax mu ñëwoon tamit boo waxee moom mu kii la noonu doo ñëwee ñëwaat ci moom fii daal macha allah ñëw nañ fi ci jàmm fekk nañ fi jàmm am nañ fi jàmm may nañ ñu jàmm ñuy ñaan yàlla jàmm jooju na fi sax ñuy ñaan ñeneen ñi nga xam ne ñoo war a ñëw remplacer ñu. yal na yàlla defal leen ñu ñëw ci jàmm ñoom tamit dund ba eggale seen mandat waaye may wax ne yàlla moo def ñaar rek ci àddina dund ak dee dund ak jóge fi may ñaanal yàlla way dawlu yi fi jógee yal na yàlla yërëm leen te yéex ñu oy fa suuf seen kaw ndax mën nag damay wax ne lundi laa wax roqee secrétaire bi damay nuyu sama xarit su sa fin ndax dama ñëw président Moustapha Niasse boole ma moom mu téye ma ak loxoom bu dëgër ma dugg nuyu ko lundi ba seddi mardi yàlla def lu ko neex macha allah loolu yàlla dogal dina yàlla yërëm ko te yeexee mais jee tamit ñu bokk dëkk suñu saalum mu baax lool nekk nit ko oyof ñaan yàlla yërëm ko te yeexee ñu oyofal suuf si kawam yal yàlla oyofal suuf si kawam ci barke Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man daal ak sant naa nag waa RP ñëpp. sant ñi may àndal ci département Pikine sant ñi may waa Benno Bokk Yaakaar yi ma doon àndal ci département Pikine commencé ko ci Ablaye Cimbo wàcc ci Pape Gorgui Ndong wàcc ci ñoom Awa Niang wàcc ci Aïda Sougou wàcc nag ci ndaw yi nekk Pikine mag ñi xale yi sant naa ñëpp fa tabarkaal macha allah maa ngi remercier ñëpp daal bàyyi ma kenn Benno Bokk Yaakaar sant naa ñëpp sant waa RP bu baax a sant naa ñëpp sant Baye Maamu Ñas doomu sëñ Maamu Ñas bi sant naa ko bu baax man daal ci gàttal jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci RP te nekk yore ay nombre tànk ñoom ñëpp sant naa leen am na ñoo xamee ne nombre tànk góor lañ leen jox ndax dañ leen jox ñu nekk ñu nekk régional ñi ma tudd mu naa tudd maa ngi sant di nuyu Adja Kineloo macha allah di nuyu Adja Dabalou Adja Kouma Ngom maa ngi nuyu ñi nga femme régionale yi di nuyu femme yi nga xam ne tamit dañu nekk présidente régionale di nuyu femme ñi nekk ci commune yi. bàyyi bu mag kenn ci góor ci mag ci ndaw ñëpp nuyu naa leen sant leen di ñaan yàlla man nii ma yàlla indee fii suñu quartier yal nañ dund ba am ñëpp am ay ndomba tànk wala ñu bari yàlla may leen ay ndomba ndax fii nag li fi nekk ci président Macky Sall mii du jeex waaye ay teraanga ay poste yu am teraanga ngi fi yal nañ ci yàlla sédd ñun waa parti RP man daal kontaan naa mais yéen leen président Moustapha Niasse wax léegi rek yéen journaliste yi dañ leen di sant di leen ñaanal yàlla ngeen dund ba nekk ay mag ngeen ñaanal yàlla yàlla ngeen am ay teraanga ci naa moom Muhammad ndax nag xoolal ku fi siiw yéen ko siiwal ku fi xam dara yéen a ko tax mu xam ko dama ne mënu woon yéen nit ñi dinañ sonn ndax mënoo jóg war a xam lépp jóg di ko seeti ak di ko laajte nekk dangay toog sa kër macha allah xoolal taal sa WhatsApp wala nga dem dugg ci eh, kii bi réseaux gis li nga loolu loo bëgg a gis di ko gis loo bëgg a xam di nga ko xam soo jógee foofu déglu journal bi macha allah kontaan nañ daal sant nañ leen bu baax yéen daal yàlla yàlla fayal leen ñu ci barke Sidna Mohamed yéen a xam li ngeen bëgg yàlla leen ko yàlla defal sonalul leen ñu benn yoon nag macha allah mënoon ngeen di saboté mairie mais kontaan nañ ci yéen koo na ma baal te xam ne sant naa ñëpp sant sama doom yi nag rawatina sama taaw jigéen politique yombul damay politique moo may jàppale mooy nekk kër moo tax añu papaam dara lewul reeru papaam moom ak ay rakkam maa ngi koy sant bu baax a baax ndaxte politique yombul nga nekk kër gu mag mais daf may jàppale di ma dimbali maa ngi koy ñaanal yàlla ma lebal ci lu baax yal na ko ko doomam fay ci barke Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nag léegi mooy doolee jën ndox doolee saxaar waaye doolee jigéen góor sama borom kër ma dooleel mooy sama conseiller moo may moo jàppale ba ma egsi bi may ñëw fii moom a gunge moom a dugg mu ne ma toogal ma toog tey bi ñu doon tàgg naa ko wax ko ne ko damay dem pour tàggatoo ji mu ñaanal ma kon maa ngi taxaw fii di wax ne bàyyi bàyyi waaye fii moom dañ fi tàggoo tey am nañ fi ba tey dañ fi ñëw ndax yàlla boole nañu ak waa assemblée macha allah kon nag merci beaucoup jërëjëf.